mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu njabooti cheikh alxaaji suleymaan njegéen ci coofak ñoo ànd ak mbégte di wo bépp julit ci liggéey ji nga xam koy amal ci juma ju mag ji ci coofak njabot gi nak ànd ak mbégte lool di ci o képp kuy julit képp ku yalla mën lo nako nga bëgg ci dugal sa loxo nga fexé rek ba joko ak ñom ci numéro téléphone bi ñu lay jox 78 124 83 02 78 124 83 02 motali juma ju mak ju alxaaji cheikh suleymaan njegéen ci coofak ñu ciy oo bépp jullit képp ku ko yàlla mën loo barkelu ci kem dayok loo mën numéro téléphone baa ko buy orange money wala muy wéev lépp mën ngeen ci barkelu ci 78 124 83 02 man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna يرنت صلى الله عليه وسلم ني كيب كو تبخل يالا جمعه با جاك سوف يالا تبخل لكر الجنه gis ngeen ko noonu muy néegab yàlla ji nga xamante ne moo nekk ci coof ak déppi bañ ko tàmbalee ba léegi yeneen ko gis ak xarxanam bi nga xamante ne ci la toll liggéey bi di woy ba fii ñu ci toll gis ngeen ko ginnaaw coulage ginnaaw rëdd li nga xam ne moo di yoon wi jullit ñi mën a jaaree ci néegab yàlla bi ngir joxe seeni farata fii mooy fi ci liggéey bi toll ngir nag jàpp ci ba liggéey bi mën a jàppandi ñépp mën koy teewee ci joxe julli juróom yi loolu tax na néegab yàlla ci oo képp ku ko yàlla mënloo ñu fàttali leen numéro téléphone bi nga xam ne ci ngeen di mën a ba mën joxe seen participation ci liggéey bi 78 124 83 02 78 124 83 02 muy Orange Money mbaa muy Wave بمتي منادون دانيو تي جوت سابقوا الى مغفره من ربكم يالنا يالا بولي نيو دفال توفيق تدفال لينكو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته